El Hadj Ndiaye cette fois comment faire pour continuer li nga xamante ne moom mooy émission bi mu mun a am durée de vie mais aussi souvenir bi nga xamante ne jëlee nga ko fii andi ko fii nga xamante ne moom mooy. désert ah, oui euh, c'est mon père euh, cette image cet homme c'est l'homme qui nous a accueillis euh, quand c'était chaud avec notre frère euh, <laughs> euh, il n'a pas hésité jël ñu ñun ñett ñëpp. donc euh, ma leen di nuyu de passage Aïcha Yaawa euh, euh, moom il nous a accueillis yenn télé yi nangoon nañ benn nit ñaari nit maximum mais ñetti image yëpp kiwuñu on était tellement soudés de telle sorte que kenn bëggul woon dem bàyyi sa morom parce que man mi ñu njëkk woo daax ma mise à pied ma ah man on m'appelait dimanche on a appelé euh, euh, il y a lundi matin je pense Aïcha Aïcha je sais plus euh, mais xam naa ni par compassion euh, moo tax parce que euh, moom émission am chaque samedi la doon daw. Mm-hmm. mais quand même amoon na mise à pied. Euh, après ci la ñu arrêté parce que man mise à pied la ñu amoon mais moi j'ai préféré dire à Père Gaston que que dematuma je préfère arrêter. ah ñu ñu waxtaanee ko entre filles euh, wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk compatir ak sa morom parce que daf leen jaaxaloon xamuñu woon exactement le pourquoi ñu demee ba toog ak moom nag mu wax ñu le pourquoi ñu waxtaan pour. delluwaat parce que da ngeen demoon so benn benn rencontre bi ci beneen télé de la place. Ah, loolu moo loolu moo andi mais du woon loolu. ah euh, c'était beaucoup plus profond que ça waaw c'était beaucoup plus profond que ça loolu la Sénégalais yëpp foog mais nag c'était beaucoup plus profond que ñu toog waxtaanee ko pare après per Gaston ne dala c'est bon léegi suba xëy leen ngeen dem liggéeyi euh, ñu ne déedéet arrêté nañ on a fait pas mal de propositions mais nag euh, euh, à cette époque li doon gën a neex mooy ñu dem relever li nga xamante ne moom moo nekkoon la 2STV et c'est ce qu'on a fait. alors seen dem 2S naka la demee. parce que yu bëri ñu ngi naan dafa Aziz bi nga xamante ne moom moo and moom moo organisé moom soirée boobu moom moo leen yóbbu 2S wala comment s'est passé seen dem. Euh, euh, c'était Aziz ak Père Gaston c'était Aziz ak Père Gaston. ñoo dem wax ak El Hadj Ndiaye. Euh, je sais pas comment ça s'est passé si ñoom je sais pas si Père Gaston les euh, si Père Gaston a appelé El Hadj Ndiaye ou euh, euh, El Hadj Ndiaye a appelé Père Gaston mais daal. Père Gaston m'appelle pour me dire que vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiaye euh, euh si ça vous dit moom il est partant pour vous prendre yéen ñett ñëpp pourquoi pas ma ne ko mais nii pour l'instant nii ñun dañuy tukki bu ñu demee ba ñëw quoi. ah ci ngeen defoon seen photo ya <laughs> ñun dañuy tukki quoi bu ñu demee ba ñëw. <laughs> ngeen def ah, vacances. bàyyi fi coow li bàyyi fi coow li. d'accord coole ne kur ku caa ñu yàq njaay njaay njaay ñu dem ñëw après bi ñu ñëwee ci lañ dem 2 ngeen commencé liggéey certaines ont quitté vous vous êtes toujours resté à la 2S lan moo expliquer sa longévité à la 2S. Euh... je sais pas man Adja man fépp fu ma nekk mën naa dëkk ak jaan ci pax. Euh, damay liggéey heure wàcc heure dem euh, peut-être que euh, musuma am chance su wala soit bi may ñëw li ma moom laa indaale donc xaaruma ñu may defaral concept wala dara confrontation sama concept la man maa ko moom euh, ñeneen ñi amoon nañ ci lu ñu nekk ñoom dañu dem ba sentiratuñu seen bopp peut-être ñu bàyyi mais man Bijou Ngoné musuma sentir boobu vide musuma sentir loolu euh, euh, dama mës a nekk ci sama conception ak samay sponsor nekk ci li nga xamante ne moom mooy sama yoon mhm. confrontation bi di dox ba tey jii mu am fukki at ak